salaamaaleykum salaamaaleykum mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax di leen ziar di leen joxaat seen wàccuwaay bu wërëwër du nuyu kullum kuy safoo wasaare rek ñu ngi lay bu baax a baax di la ziar di la joxaat sa wàccuwaay bu wërëwër di ñaan Sénégal yal na fi jàmm yàgg ñaan Sénégal yal na fi jàmm yàgg ñaan a way dawlu suñu borom yërëm leen te xaar leen te àjjana firdawsi ñu feebar tëdd ci hôpital ci kër yàlla suñu na yàlla suñu borom may leen ñaari xale ñaari ndaanaan kenn ki miin na jàmm gën ndax dugg na fa am nu mu fa def ndax da ndax da ko dàbbali wala déet dina leer waaye ñu njëkkaa jox mu nuyoo Amet nuyu naa waaw ñoo ngi lay fay waa di wax ginnaaw bu ñu sant yàlla di julli ci yonent bi di sant suñu ñaari waajur di nuyu waa diaspora bi yëpp waaw di nuyu waa aduna di nuyu waa Bawol di nuyu waa Dakar palaato Médina maa ngi nuyu ñëpp waaw di nuyu waa aduna di nuyu ñi ci kaso bi ak ñi ci hôpital yi di leen ñaanal yàlla suñu borom mu tegil leen netu yi maa ngi noyu détenu yi yëpp waaw. doomu jàmm gën ziar naa. waaw delloo ziar ginnaaw ñu sant yàlla jul si yonent bi di sant sama ñaar waaye di sant waa jàmm gën ñëpp di sant ñi ma àndal yëpp di sant promoteur bi tamit mu jël ñaari xale def si xaalisam bu bari pour ñu indi ko ay nit waaw di leen sant yéen ñi tamit di sant sama gaay ma àndal yëpp waaw di sant moom sama adversaire. doomu jàmm moo tax nga ñi fi ñëpp bàyyi ñëpp bàyyi. nga jël ko kii defet moom boole ak moom. parce eh? que alxuraanu karim. dégg mu de. defet moo boole ak moom. defet moo la boole ak moom. wallaahi. kii dugg na fa de këpp seeni reer. dugaat na fa ñu daanaat ko. Eh? dugaat na fa fa la ñoo ko daan. kon su ma déggee nii yàlla si waaw moom dafa dugg jaamu ngeen. waaw daan fa lis njaago. waaw dugg jaamu ngeen. waaw nga mu war a daan ko. si kàttanu yàlla bi lay daanuwaat si kàttanu yàlla. waa ñun ay dama faa dugg ak ay dugguma fa ak ay lii ak lii kii li mu wax ne defet moo ñu boole même kii man defet moo booleek moom waaw mais ay liis kii kii xam nga ne defet moo ñu boole. moom nee defet moo tax mu jëlee moo man itam defet kii defet moo ma booleeg doomu Diamaguène tamit. Eh? defet moo ma booleeg moom. defet moo ma booleeg moom ñoom nag yi ñu nekk man nekkuma si man dama am fu ma jóge te damaa war a jëf. nit ñi gis. ñoom dafa am si lu ñu nekk comme nan. man ñoom dañu bari wax. loolu wax ñoom lañ ko féeteel ñoom ñoom jam a genn si boppam man li may wax duma si laq-laqal dara. yaa ngi dégg man nag damaa am fu ma jógee quoi wax wax man instant yi nii soxalu ma man damaa war a jëf nit ñi gis dama ameel samay mbokk bor. ameel ñii di topp ci sama ginnaaw bor te dañuy son si man boobu ba léegi combat lañ bokk yàlla dogal na am nañ ko. ah maa ñaan yàlla suñu borom bu suur baa kenn bañ a manqué yàlla yóbbu si jàmm ak salaam kii moom rek si géew bi du miti wala luy métti moom lay jóge dama koy duma daan ko kii duma ak moom. voilà nee na wax wax moo seen métier wax. adversaire yi fi jógee di wax comme li muy wax nii bëri nañ kom doomu jaamu ngeen xam na doo aréel nit toll nen toll sax ni mbëri yi wan ku ko xam xam ne daanaan la. léegi li wax na yéen jaamu ngeen wax ngeen féetewoo wax. mbëri bool bool yi ma wax la ko fii bu la jeekul duñ bëreeg yow. buñ la jeekul duñ bëreeg yow. barke alxuraanu kariim maa ngi déglu ay caat moom ay ñiy mbele lañ ma tax doomu jaamu mu ngi diñ ko yóbbu sama avance mu ne damaa daw caatu Mbombay bu dee mus nañ promoteur mus na ma woo ne ma waxu avance yàlla naa dee déglu ma rek damay déglu si si la bokk si bool boole bool boole fi moom si la bokk moom bool bool la léegi moom nga amal la waaw léegi moom nga amal soxla déggoo ma de moom kii moom maa moom hmm. sab géego la barke alxuraan karim lu mu wax nii naka jëfee rek moom nee na moom arbitre siffle la seq ak yow duma la kii bu seqalul man arbitre siffle ma duma ko daan ko lan la seq ak man eh? bu arbitre bi sifflé hmm. lu mu wax maa nga def si kàttanu yàlla nag mu jëm seeraat rek ñaaw dee rafet de waaw kii day bari wax rek di wax mais nag man man nag li ma bëgg mooy li muy wax na ko ñeme waa bu surbaa mu bañ a arrière ñun amul arrière waaw. moom du man lool laa jànjak kii bu dul arrière man lan laay def man damay avancer wala damay arrière xoolal samay combat xaw ma arrière. su attaque loolu ma la wax su arbitre bi soufflé na déggal boppam ñu neexal ko mobiliser lu doy neexal ko yaa ma gën a xam. kaay yéen toog leen yéen toog leen yéen toog leen bu kenn wàcc. nga nga lan mu la. kii dafa doon boole moom. ki xoolal palmarès am nga xool sama palmarès. palmarès am kii la am deux victoires mu ngi nii. six combats laa bëre. waaw six combats laa six combats laa bëre. waaw da ngay tey kan kan moo daan. safara daanu la. waaw Meng Mor daanu la. waaw ak kanal daanaat. ak jaraaf yu sunu. waaw kon trois waaw déglu ma ma am trois victoires six combats am man dawuma si. man sept combats am cinq victoires la am deux défaites. su ma neexoon du laal kii. defet nga jóge amul si defet grand combat jóge. di ko si premier combat. jóge bés bu mag. jege leen jege leen eh, kii déggal ma la kii day xaar seen grand xaar day xaar seen grand combat yu yaraax yi daa tax ñu naan grand combat grand combat da koy met yaraax dëkk la de yaraax dëkk la déggoo ma yaraax dëkk la mais stade bi ñoom ñoo koy yaa ngi bëgg grand combat mënu nga ko bëri man bëgg naa grand combat mais promoteur baa ngi toog xamal la journée yaraax yooyu de kii mu ngi nii bëgg grand combat mënu nga ko bëre déglu ma nañ déglu xale bu ndaw ñu jox ko grand combat dañuy eh fii amul déglu ndi de

dinaa duy stade bi ba fees du la daan la. moom dat dat bi bu mu sori daa dat dat bu mu sori. lii war na sori. da ngaa pare léegi da ngay def day 4 mois warul ay 4 mois. barke war a gaaw. maa la gën a pare fuuf. su ma la jàppee nga xam ne lépp dëgg la bu ma la jàppee du ma la daan la. bari woo wax maa la gën a bari wax fuuf. da nga see tollu rek. waaw dama non yee sa waay da ngaa déggoo li ma la wax maam Serap Fall dama lay duma daan la dama lay duma daan la yéen da ngeen a bari wax da ngeen a bari wax mais fii ngeen koy. lamb wax la am fii ngeen lamb lamb wax la ñun dañuy jaay suñu lamb xoolal la man pare naa te bu ma la jàppee daan la. dama laa xool yow maam Ndiass di la xool yow lu ma lay xool maam ay Liss Ndiago di la xool nit balaa moo gën a neex da ngay topp si ginnaaw nit di daw folo booy. bul daw si ginnaaw nit man nag topp ma si nit topp ma nit te yow bu ma la jàppee duma la daan la barke maam Serafal bu ma ko jàppee dama koy duma daan ko. say morom fi lañ jaar di wax rek ay morom li lañ doon wax. est-ce que ay moromam li si nekk si ay morom li tamu si moom. ba bis ba. man du ma wax ak dama lay duma daan la. ba bis ba. dama lay duma daan wax. Ah. li lañ doon wax rek barke yàlla. ki lu ma la rek defet dama boole moom defet. waaye déglu leen ñaan ñëpp yéen ñaar déglu leen léegi Ahmed promoteur bi déglu ma promoteur bi xale la comme yéen déglu ma déglu ma promoteur bi xale la comme yéen Ahmed déglu ma promoteur bi xale la comme yéen dëgg leen ngeen nekk ñaari xale est bu jour ba li muy xaar si yéen dina ko gis. déggoo li ma la wax lan lay xaar si ñun mbooloo te moom rek la soxla si ñun ñu dag bi yi dugg feesal stade bi na ñëw ko baa bi sax barki alxuraan bu soobee yàlla duma fo fa ëpp le supporter. Mor Kanka la wala kan la. waaw maa ngi koy ñaanal yàlla suñu borom mu defal ko ndam mais bu suur baa amut ku may ëpp le supporter ci stade bi mu ngi taxaw ñu ngi taxaw ñun ñëpp te dinaa mobiliser ñëw jàpp ko duma ko daan ko kii duma moroomam. dama gën promoteur bi xale la comme yéen tamit fay leen xaalis. sa li muy xaalis yéen mooy mbooloo. jàmm ngeen bu jugee liir liir sax ko jugee jàmm ngeen jug. Eh, liir bu ndaw liir barke yàlla liir buy bëre liir bu ñu ngemb bu jugee jàmm ngeen jug. yow xam nga loolu liir bu jugee jàmm ngeen day kon jaamu ngeen waxuñu woo public ku xam jaamu ngeen xam ne xam nga si public barke alxuraanu karim jaamu ngeen ku nga xam nga si public baax ba bis ba rek lu promoteur bi yëpp soxla si kàttanu yàlla dañ ko indi incha allah rabbi léegi doomu jaamu ngeen léegi wooteel nga lancé appel waaw ñu ngi woo waa jaamu ngeen ñëpp maa ngi woo Kandji production maa ngi koy woo si combat bi dégg naa lu muy defal mbëri Kandji Kandji production maa ngi koy woo si combat gis naa lu muy defal mbëri man nag xam naa la nii na waan xaw ma bu baax dama bëgg woo naa si combat nga jàppale bu baax baax moo nekk nii waaw sponsor waaw sponsor kañ bi maa ngi koy woo mu jàpp si combat bu baax a baax a baax a baax a baax waaw di woo waa jàmm ndax suñu combat suñu làmb dafa métti ñun ay mbëri ndaw lañ ñun fay ñuñ dara fay ñuñ dara ne foog ñu am ay jàppale waaw di woo waa jàmm bu baax ku si mel ni Ousmane Kome maa ngi koy woo si camp bi comme combat bi comme ni mu doon ñëwee rek mu gën ko ñëwee di woo Bisu Fall si combat bi waaw maa ngi koy woo si combat bi ku si mel ni Lamine Seras maa ngi lay woo si combat bi Ibrahima Kanté nag combat bi Ibrahima Kanté bu bu nekk si Italie sama xarit sama doomu ndey ñaari bolok laa la sas billaa walaay taalaay maa ngi woo waa jàmm ngeen ñëpp di woo ko si mel ni Ilman Seras comme ni mu si jàppe woon rek mu jàppee ko si comme ni si doon gën a rek mu maa ngi si woo suñata di si woo sama grand mbay ngay fay lu si deful baaxul sama grand mbay ngay fay di si woo Sita Tarkinda borom dëkk bi maa nga si woo maa nga si woo mu jàpp si combat bu baax a baax a baax di woo waa dóor si matt bi yëpp di waa weñ gu ndaw gi waa di sama sëfër bi nag mbaf sama safar maa ngay sant bu baax baax di sant waa jaam nga ñëpp di leen woo si combat bi Kande moom sas naa ko ñaari bolog moom nañoo jëlama bolog yi rek combat bi moom laa koy bëreel si kàttanu yàlla jàpp booy bu bëri wax bi defaral wax baax rom dem sama yoon incha allah rabbi woote waaw maa ngi woo waa Bawol di woo waa Medina Traay ba di woo waa Jamono di woo waa Plateau gépp waaw di woo sama mafia bi waa waaw mafia tiitul dara bi maa ngi woo ñëpp di woo ñoom Cheikh Omar xam nga ñoom Alpha ñoom Kader maa ngi woo ñëpp di woo sama njame sama doom day sama xarit sama safoor moom itam di woo mbay abaa waa mbay Mbaye Aba combat bi sa combat la di woo Amet Bultuf maa ngi woo Baye Fall yëpp ma laay sama sama rak sama xarit maa ngi lay woo ko mbaa bi sa combat la di woo waa Bawol gépp di woo Modou moodu pentiir Modou Pentir ah. xam ne yow bi dara doonul dara bi am bi combat amul nga siy jàpp maa ngi lay woo di la wax ne combat bi sa combat la maa ngi sa ginnaaw yaa ma gën a xam waaw di woo di kii di woo Babacar di woo Babacar bu Mod Lamine Babacar borom Petersen maa ngi lay woo bu baax a baax di la wax ne combat bi sa combat la waaw di woo dollar maa ngi lay woo combat bi sa combat la sama grand sama xarit di woo ñëpp di woo waa Bawol di woo waa Raay ba booy yëpp di woo jaata sama booy jaata sama booy bu ndaw bi maa ngi koy woo bu baax a baax di ko wax ne combat bi combat am la di woo ñëpp Issa Diop dollar gars yi yëpp nañ si jàpp wax leen ne combat bi seen kombaa la waa yaa ma gën a xam waaw mooy loolu. wallaahi combat bi nii nag maa nga turee sama benn xarit ko xam ne ñu ànd guddeeg bëccëg ñu koy woowee Ndior BMW mu ngi ne combat bi maa ngi koy woo si ko borom du ko Espagne combat bi moom laa ko tuddee barke Seydina Mohamed mooy borom BM bi di si woo Baye Sidi Baye ngay woo si combat Baye Sidi ngay woo si combat bu baax a baax maa ngi woon numéro 10 si combat bi mu def comme lu mu naan def rek waaw di jàpp booy bi defaral na maa di bëgg ñuy siiwur ci wasaare lamb yëpp ginnaaw bu ñu sant yàlla jul si yonente neex la boo xam ne dër bi la muy jaam a gën bawal ndax mbay guy gi a gën dajee woon nan te yaakaar a gën jaam a gën si kaa mbaaw la bokk Ameth Lac Rose bu ñu ñëwee bëri waat combat bu neex la boo xam ne waaw bëri moom mii tamit kii tamit su ma jumul non kii moom mosul dugg Bawol su ma jumul ndax moom moo immigré arène nationale samedi 19 janvier moo fi bëri fii nii Sundiata Pape Sène kii moo fi njëkk a daan Samorola muy doomu jàmm gën bu nekkoon nasaraan yi tubaab yi dañ ko ciy fay mais ñun nag lamb la xam naa lamb lamb moo lamb bu doon coupe la day day am xaalis waaw noonu la demee di wax daal Ibulaay Ibulaay production moom moo taxawal li deux jour rek ci la combat bi taxaw nii ñu koy ñu koy ñaanal non non non jafewul ndax kii daa bëgg kii bëgg rek après lu ci des problème koppar la ci desoon léegi après déggoo nañ combat bi taxaw na bu ñu teelee am dara incha allah ko yóbbu Iba Mar mu nekk combat bu neex Ahmed Lagros ko xam-xam ne ndaanaan la moo daan Petit Lo moo daan Liss Ndiago kii tamit def na six combat ay combat am kii mooy borom kii mooy borom seconde yi ci ay seconde lay bëre moom mii nii ndax ku daan Papiko daan euh, xale bi nekk écurie Guédiawaye nu mu tudd sax Recoba daan Gosé waaw kon kii lu ne def na ko ci làmb waaw kon kii daal ak Ahmed Lagros ak doomu jàmbagun bëree combat di woo PDG Kandji bu ñëw jàpp ci làmb ji gis nga sponsor yaa ngi TDR travaux bâtiment Touba Darou Rahman di ko ña di ko jaale Abdou Kandji magam doo soxna si dafa am dafa ñàkk bakkanam démb yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana suuf Touba ayof ci kawam Abdou Kandji magu Kandji la ak di ko jaale ñoom Tafa Kandji famille Kandji yëpp di wax daal làmb nii la kon kontaan nañ ci waa Diamaguène ni ñu ñëw toogee waa Bawol ni ñu ñëw toogee rafet na combat bi incha allah bu amee dara rek soobu yàlla ñu yóbbu ko arène nationale combat bu neex la Iboulaye production moo ko taxawal di ñaanal wax lu làmb yëpp di ñaan réew mi yàlla ci yàlla def jàmm sponsor nañ ñëw nag jàppale Ibulaay ndax promoteur bu bees la ku bees la Ibulaay yàggul du kan ci làmb sax ndax yàgg boo nag xarañ loo bu ñëwee kon waaw bu ñëwee dugaat ci làmb kon sorti ceeg def ci la nan ko jàppale ñaanal ko combat yi réussir mbër yi mobiliser Amel Lagrosse day mobiliser doomu jàmm gën gi day mobiliser Mor Kankang Youssou Ndour mi ngi suñu kanam Zarko ak Diène Kaïré mi ngi suñu kanam ñu ngi togg leen double Tyson ñu ngi koy wutal ku mu bëreel waaw le roi des de Kaolack ñu ngi koy wutal mu bëreel ku ñeme ñëwal jël avance bi double Tyson bu Gambie double Tyson bu Kaolack avance mi ngi tere mbër bu bëgg rek. na na ñëw. waaw dama am ñu ma fàtte te waruma leen a fàtte mbay guy gi sama grand moom mooy sama lépp mbay guy gi sama grand mooy sama lépp comme ni nga doon def ak man rek bul xeeb dara combat bi sama combat la yaa ma gën a xam sa combat la jàpp si waaw di woo koo xamante ni kenn la si man ax ma daa daa borom cité maa ngi lay woo borom fisel Mbadaan waaw combat bi sa combat waaw yow mënuma laa fàtte quoi kenn nga si man. di woo Bamba Bamba Paterson baay ma Mandione Salman ñooñu ñëpp maa ngi leen di woo di leen wax ne bés bi seen bés la damaa bëgg a duy Peter fee ba mu fees Ibamar yaa ma gën a xam Petersen sax dama koy duy foofu sama yoon la bu may jàll mooy loolu fépp dama koy duy yaa ma gën a xam waaw bul tiit dara. mais Ndiaye Amane Ndiaye ñu koy sant moom nag yombal na affaire yi. ak di gërëm di gërëm caatu ndakaaru borom dëkk bi sama doom ndey sama xarit caatu ndakaaru maa ngi koy béggee waaw. di gërëm gaay ñoom seex Omar Ibu Ibu Ibu Yakumba maa ngi koy woon naar Afia waaw. yàlla dogal na ni sama seex da doon bëre démb nag. sama seex waaw. yow xam ngeen sax sama seex la da doon bëre démb. wante yàlla dogal na ni dafa ñàkk. waaw ñu koy wax ñu gën a defarwaat rek di ko wan ni làmb nii la ndax ndam lu nekk indi nañu ko. ndam lu nekk amul bu neex bu naq amul ndam bu mu ñu indilul. ñu ngi koy wax bu amaatee combat rek yàlla defal ko ci ndam waa ndax sama combat da son sonn te yàlla xam na ni combat am démb nekkuma fekkuma ko sax. barki alxuraan kër xam mooy maa ngi woo waa waalo yëpp des na lu bari amul problème joxante leen loxo maa ngi woo waa waalo yëpp maa ngi woo waa Fos di woo waa Kër Masaar bu baax a baax maa ngi woo waa Fos sama mbokk yi di woo waa jeg sa waalo jaama gën sam-sam maa ngi woo ñëpp bilaa walaay Petit Ameth lion bi combat bi bu taxawee ginnaaw moom def na ci lu mooy magu doomu jàmm gën ak ak Kanté Kanté nag wax na dina jëndal doomu jàmm gën kon Ameth Lagros Babacar Mamadou Lama Sandaga jaaykatu jaaykat jaaykatu euh, commerçant bu mag bi na la jëndal ay billets ak ñoom bara jon waa bool yëpp waaw kañi production kon jàppaleel ñaari mbër yi TDR moo leen solo nuyu nii nuyoo nuyoo nuyoo